برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله التزمت بالله واستجرت بالله واستعنت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم تسليما على خادم الحضرة القدسية أين رحمة ربانية أمين الأسرى إلهية رسل المملكة السمدانية بسات الخلة تاج المحبوبية الفاتح الخاتم مولانا محمد أبي القاسم وعلى آله وأصحابه حق قدره العظيم الحمد لله رب العالمين yow borom bi azza wa jalla yow yàlla mi nga xam ne yow rek yaa yàlla ku dul yàlla du yàlla say jaam kese yem ci dellu nañu dajawaat ci benn pàkk ci say pàkk di la delloo njukkal di la kañ di la bakk di nangu ne yaay seen borom di beesalaat buumi kóllëre ci yow borom bi subhaanahu wa taala xam ne yaay ki amul moroom ki am moroom motul boroom kamat boroom amul moroom ñu ngi ziyaare bokk jullit yépp ci weer bu tedd bi di shahru ramadan yal na yàlla guddal fani te wéral cër yi yal na yàlla guddal fani te barkeel ko suñu yëngoo suñu dal yal na lépp di yàllay kese subhaanahu wa yàlla bu ñu dal ci fitna yàlla bu fitna dal suñu kaw lu ñu sumb yàlla na sotti lu ñu jéem yàlla na antu lu ñu tàmbali yàlla na yegg yàlla bu kenn am ci ñun cër bu dul yàlla subhaanahu wa taala déwénati leen déwénati leen leen fekkaay déwén yu takkoo takku mbokk yi nañ xam ne yàlla day subhaanahu wa taala téere yu mu wàcce woon yàlla wàccee na ay téere di wàccee ay téere ba wàccee téeméeru téere a ñeenti téere yi téere mi ngi wàccoon ci kaw yonent yàlla aadama alayhi salaam am na téere yoo xam ne mi ngi wàccoon ci kaw doomam te mooy sayidna si isa alayhi salaam moo doon caatam waaye am na yeneen ci ay téereem yoo xam ne mi ngi wàccoon ci kaw sayidna nuux alayhi salaam am na téereem yoo xam ne wàccoon na ci kaw sayidna ibrahim inna haza la fi suufi l ula suufi ibrahima wa muusa ñeenti téere yu mujj yi mooy tawraata bu muusa zabura bu daawud injil bu isa alquran gi nga xam ne moom lañ yore te mu wàcce ko ci kaw sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam téere yooyu ñu tuddoon yépp amul benn ci téere yooyu boo xam ne tey jii mi ngi dundati déedéet téere yooyu yépp daal dina raaf jamono néew na lu mu ci xamati na yonent yooyu dem seen téere yooyu noonu lañu ñu demee alquran dem nañ ci junni at ak ñeenti téeméer at yu teg benn xaraf mosu cee jóge alquranu démb ga mooy alquranu teji jii waaye alquranu tey jii mooy bi ndaw yi di jàng ëllëg de moom la fi maam yi bàyyi woon bàyyi ci lañu dund waaye ba sët bay mujj juddu ci alquran gi ci la di baaxe ci la di rafete nitu yàlla yi képp ku yéeg ci alquran la yéegee ku falu ci alquran la faloo kenn ku nekk li mu am ci alquran la ko amee alquran bàyyiwul dara alquran yéwén na ci lépp ci fépp ci nu mu doon alquran xanaa fii la sama xam-xam toll walla fii la sama dégg yam waaye lii alquran tudd ko alquran waxu ci loolu amul alquran wax na lépp bàyyiwul dara ku baax ki te mooy xaadimu rasul di Cheikh Ahmadou Bamba yal na yàlla taas ci ngi wax ci téeréem bi nee na akrim bi zalikal kitaab fiihi hudaahu wa sawaab fiihi alxitaabu waljawaab min rabbina zil qidami moom xaadimu rasul moo mu ne teraangay teraangay foo koy wute nee na bi zalikal kitaab mi ngi ci téere googale yow kii dem penku yow kii dem sow yow ki jëm bët saalum yow ki jëm bët gànnaar akrim bi zalikal kitaab màgg màgg yi teraangay teraanga yi dayog dayo yi nee na lépp bi zalikal kitaab mi ngi ci téere boobu di alquran moom xaadimu rasul moo wax loolale nee na fii nekk na ci alquran xudaahu yoon ngi jëm ci yàlla nga xam ne boo ko wàccul ci yàlla ngay yegg te ku yegg ci yàlla baax le baax le fële nee na benn yoon dong la mooy alquran gi waaye wa sawaab nee na yool goo xam ne dootul dakkati aljana ga nga xam ne dootul fay nee na boo ko bëggee am ci alquran ko koy amee nee na wa fiihi moom sëñ Tuuba mooy wax ba léegi nee na fiil xitaabu wa jawaab li nga bëgg a laajte ak li lay tontu lépp mi ngi ci téere gi ana lu waral loola le mu ne min rabbina ngir mi ngi bawoo ci suñu bo zil qidami moom mi nga xam ne moo njëkk-njëkk mooy njëlbeenam lépp lépp ci moom la gongee koo te moom yàlla gongeekuwul ci dara yàlla nañ ko yàlla fayal yaa rabbi kon alquran a ngi nii lépp lu doomi aadama di xalaat lépp lu doomi aadama fabriqué lu mu inventé lu mu feeñal lu mu doon ak fu ko jëlee ak ñan ñoo takkatoo def ko lépp yàlla ndëxaj na ko ci téeram bi yàlla na yàlla fay mag ñoo ñële alquran ku ci téye du deñ di la ñoddi ba teg la ci loxoy Seydina Muhammad ngeen ànd jéggi siraat dugg aljana yàlla teral leen yàlla nañ ko yàlla defal kep ku bàyyi alquran bi gannaaw doo deñ alquran di la pamti pamti dila njatamal di la dila di la jeex ba nga def ci gannaawu gannaaw yi ci musal kon nitu yàlla yi musuñoo am lu dul téere gi musuñoo nampatal sen njoboot bu dul ci téere gi sen guddi sen suba sen gon lep ci téere bii rek lañ ko moo tax boo demee ku baax ki Mawlana Cheikh Ibrahim di Baay Ñas yal taas ci barkeem mi ngi naan fal tajalan na hifza kitaabakal karim karamati ila liqaayka al azim shawqi wa hubbi fii la yushfi illa nuzuli wa irtihali fii moom Baay ni ngi naan yow yàlla na nga def alquran muy sama karama Karama boo ma munti jox ci karaama yi def alquran sama wëttu sama njaboot wëttu sama askan ak sama xeet wëttu lol loolu di seen karaama te loolu bu mu dakk mukk bekkara may daje yow yowmal qiyaamati moo tax may na ko loolale sama mbëggeel sama cofeel du dak mukk dara munu koo saafara bul nga may ma bu ma jeexalee kaamil la ma yëg ci kaamil bu ma jeexalee kaamil la ma rek may yow demoon na ba semaine bu nekk dana ci wàccee ñaari kaamil demoon na be semaine bu nekk dana ci wàccee ñett kaamil am na doomu aadama ñu ne vingt-quatre bu nekk mu mujjoon na moom baay def ci wàccee kaamil euh, kon euh, bu baay melee nii wallahi war na mel war mel noonu le kon képp koo xam ne yaa ngi bugg a roy mag ñu baax ñooñale téyel ci téere ji boo ko téyee da nga baax la ci zahir da nga baax la ci baatin da nga defaru loo bëgg a defar dana defaru danga baax ba wey baax di baaxal waaye da nga wey baaxal bay xar baax yal na yàlla defal loola le kon bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillaahi maa ngi demee kàttanu borom bi subhaanahu wa taala bismillaahi yàlla mooy njëlbeen bi nga xam ne amul tàmbali ca cay bismillaahi yàlla mooy aj des gi nga xam ne amul jeextal be dappet rahmaani teraangay biti yàlla la rahimi teraangay biir yàlla la rahmaani ngeneel yàlla la rahimi xéewal yàlla la rahmaani defaru ci biti yàlla la rahimi defaru ci biir yàlla la nee nañu bismillahi rahmaani rahim fukki araf la ak juróom-ñeent muy ñaar fukk bu manqué benn fukki araf la ak juróom-ñeent mooy tolloog waahidun waahidun góogale mooy cëru Muhammad ci yàlla waahidun góogale kenn amu ci cër bu dul muhammad keneen dootu ci am cër bu dul muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la tasaaroo ci moom jëm ci mboolem waliw yi comme boo ahadiya yàlla rek moo ko moom boo ne wahdatu yonent bi rek moo ko moom waahidiyatu moom la yàlla jox sayidna muhammad ngir mu jox mbooleem yonent yeeg waliw yi moo tax mboolem anbiya yi mboolem awliya yi mboolem rusul yi ñoom ñëpp ñu ngi tëbboo ci waahidiyatu te waahidiyati boobale ñu ngi ko tëbboo ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wahdatu waahidiyatu ahdiyatu incha allah taala danañ ko leeral bés bu ñu yeggee ci suratul ixlaas kon bismillahi rahmaani rahim fukki araf la ak juróom-ñeent muy waahidun am na bu ko jiitu mooy wahdatu am na bu ko jiitu mooy ahadiyatu ahadiyatu cëru yàlla la mooy azalul awal kenn amu ca sottandiku kenn amu ca cër kenn amul ca sottandiku bu lu borom bi subhaanahu wa taala mooy bu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam fa awha ila abdi ma awha li mu jagoo kenn jagoowu ko li mu yor kenn yoru ko la mu doon kenn musu ko doon te kenn dootu ko doonati ku ko doon rek moo la baaxe euh, ci ci ci ci ci waahidiyatu gannaaw ahadiyatu ak wahdatu kon mi ngi noonu le fukki araf juróom-ñeent kon bisimillahi rahmaani rahim boo demee tam boo kontee baat yi baat bu nekk nga génnee limam kon bas basmala mi ngi lay jox dana la jox junni ak ñaar fukk ak juróom-ñaar fóote moom mooy tolloog wa yanqalibu ila ahli masuran baati na mooy baat boobale moo ta boo ci saxee sa mbég du dagg mukk boo ci saxee sa xéewal du jeex mukk lu mbooloo di def di ko tële yow kenn boo ko songee rek da koy yóbbu wa yanqalibu ila ahli masuran fukki araf la ak juróom-ñeent bisimilah rahmaani fukki araf la ak juróom-ñeent li mu baatinam junni la ak ñaar fukk ak juróom-ñaar bale junni la ak ñaar fukk ak eh, juróom-ñaar kon bisimilah rahmaani rahim mi ngi noonale balaa muy wàcc buñ doon jàng dañu naan bismika allahumma yonent yëpp loolu lañu yore woon ba mu ñëwee ci jamono yonent yàlla xuut beggaalam bi di départ moteur ba ko doon yóbbu di ko taxawloo ci la yàlla soppee ci bismika allahumma def bismillahi mujreha wa murseha moteur bi ko doon yóbbu di ko delloosi mooy bismillahi ba ñu demee ba noona yàlla googu ñu doon tuddee namruus bun kanaan ba muy sànni yonent yàlla ibrahima ci safara sa qul adu llaha aw adu rahmaana kon ci la ci rahmaan bismillahi rahmaani yonent yàlla suleymaan alayhi ba muy bind bataaxal di ko yónnee buur bu jigéen boobu ñu doon tuddee balqiis di buuri saba ba muy bind keroog la mot innoo min suleymaana way noo bisimilah rahmaani rahim kon mbir maa ngi noonu le nee nañu miim bu njëba ndox yi aljana ci lay génnee ndox moo xam ne du sàppi du sàlli allahu haaba nee nañu meewu aljana ci lay génnee rahmaani miimam boobale nee nañu lemu aljana ci lay génne rahim mim bu mujj gogale nee nañu sàngaray aljana ci lay génne tajri min tahtal anhaaru ñeent dégg yaa ngoog kon alhamdu mboolem xaaji cant aji la ñeel borom bi rabbil alamina kii borom bi ndeef alhamdu mboolem xaaji cant yi hamdal qadim lil qadim hamdal qadim lil hadis hamdal hadis lil qadim hamdal hadis lil hadis ba yàlla bindee lépp daal di yemb lépp daal di aw yoon lépp daal di doon sago moom yàlla ci boppam mu daal di yéemu ci jëfam yooyu la ah laysa laysa kamithlihi shay'un dara du yàlla yàlla rek mooy yàlla mooy hamdal qadim lil qadim doomi aadama bi bu defee lu baax yàlla bëgg ci moom ne kon ne amal abdu innahu awaab sama jaam ju baax a ngi nii jaam joo xam ne fu ma ko joxoñ fa jaar yàlla defal la ay teraanga nga ne alhamdulilahi lépp yàlla rek la yéen neen soomaa soom ngeen defalante ay teraanga kenn ku nekk sant moroomam yéen ay sabab dong ngeen ay mazahir ngeen waaye cosaan ba ki leen dooleel kenn dong la mooy borom bi subhaanahu wa taala moo tax ñu naan alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent aji saxli lillaay ñeel borom bi subhaanahu wa taala rabbil alamina kii borom bi ndee kon allahu uluhiya la rabbi rububiya la moo tax yàlla nanguwul ne alhamdulilah rabbi ilaahil alamin ah loolu du diis la uluhiya mooy maandoom gi moom yàlla yàlla bu la jëflantee ak maandoom sa benn mbaax dootul feeñati bët bi ngay xoolee téere bi ku la ko defal yàlla la làmmiñ bi ngay jàngee téere bi ku la ko defal yàlla la nopp bi ngay dégloo ana ki la ko defal yàlla la asamaan si taw nga def sa jiw bay di ci génne azaka foog ne sa ngóora la ana kan tawal asamansi, si ana kan moo saxal gàncax bi ana kan moo la may wér nga tal am dal bay bay am loo kan la yàlla la kon alhamdulillahi yàlla bul jëflanteeg doomi aadama ci allahu dong rububiyaam uluhiyaam maandoom daal di dugg amul kenn koo xam ne da nga mën a seqi ah, ndax bu boobaa dafay di tar dafay diis moo tax mu cantam ak uluhiyaam mu boole mu boole mbindam ak rububiyaam ngir doomi aadama mun koo dékku moo tax mu ne alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent aji saxle lillaa ñeel yàlla rabbil alamina ki nga xam ne mooy ki sàkk mbindee fii seetal mbokk yi ni yàlla bindee doom ni yàlla bindee yàlla mooy ki jël sunguf dugal ko ci biir sànqal yàlla mooy ki jël sunguf dugal ko ci biir sànqal jël sanqal boobale dugal ko ci biir pepp jël pepp ba dugal ko ci biir cox jël cox ba dugal ko ci biir xetax jël xetax ba ngot ko ci biir jël ba dugal ko ci cëgg wala dugal ko ci gub gub googale mu bootal ko aw gatax lii yow doomi aadama boo bojjee nga dëbb bu ñu nang ko delloowaat sa dee mooy taxawaay doo ko mun mukk kon rabbil alamina yàlla mooy ki defar mbindee fi kenn du defar ni moom yàlla mooy ki defar mooy ki sàkk mooy ki amal aalam yi bari nañ bari goo xam ne kenn mun laa wax aalam yi ni mu toll aalam yëpp xam nañu suuf aalam yëpp xam nañu doomi aadama waaye doomi aadama xamul aalam yëpp lu tax ñu xam suuf nit a tax lu tax ñu xam nit Seydina Muhammad moo tax sallallahu alayhi wa sallam amul jinne amul kondorong amul kiyaafi amul malayka kurubiyuun dafaafata safarata taastati maastati mboolem xeeti lu yàlla bind lu nit mu xam ak lu mu xamul lépp xam na suuf ngir doomi aadama waaye lu tax mu xam doomi aadama ngir ki feeñ ci ñoom mooy xayrul bariyati di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon rabbil alamina am na alam yoo xam ne ñoom ci ndox la ñuy dëkk bu ñu génnee rek dee am na alam yoo xam ne ñoom ci ngelaw lañu nekk buñ ci génnee rek dee am na alam yoo xam ne ñoom ci safara la nekk buñ ci génn rek dee moo tax bu ñuy naan jant bi amuñu fa dëkk ngir tooke bi muy sànni mu ngi takk tàkk guddeeg cëg ay nangami junniy junniy barigo tooke mu koy taal ba ko yàlla sàkke ba léegi ay mbindeef mi ngi fa de ren jii ñu toll wala ci weer bi ñu génn jant bi buusu na buusu goo xam ne war na ma téeméeri at defu ko moo tax nañ dem ak sago yàlla lu ma téeméeri at ci ren jant bi buusu na buusu goo xam ne ci weer bi ñu bawoo dem na ci nangami million wala nangami junni junni ay kilomètres dox na ko jëm ci suuf si yal na yàlla dimbaleñ yaa rabbi kon nañ delluwaat ci borom bi subhaanahu wa alami eh, ni mu toll kenn xamu ko rabbal alamin arrahmaani yàlla mooy zahir rahim yàlla mooy baatin nee nañ yërmaande yàlla yi bu doon téeméer la benn dong la wàccee ci àddina bi moom la ñuy yërëmantee ñun neen ci la taw bi di wàccee ci la gi di saxe ci la gi di bambulaan ci la jigéen di di matu wasin waidute, du tee mu fàtte mettitu matu googale ngir baatu rahmaani googale dellu ëmbaat àddina gi dox rahimi nee nañ juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la yàlla mi ngi ko denc ngir yomal kiamati, yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi maliki moom maliki yawmi diine mooy buuru kere ba ñuy teqale diina yi kenn ku nekk la nga toppoon ba mu tere la jaamu yàlla bu yowmal qiyaamatee yaag loolu ngeen ànd taxaw ci kanamu yàlla nga seet ndax loolu dana la jëriñ yowmal qiyaamati kenn ku nekk la la tere jaamu yàlla da nga sàppe ci gannaaw loolu seet ndax dina la jëriñ ñi làmb tere woon jaamu yàlla nga sàpp ci gannaaw mbër yi seet ndax dinañ la jéggaloo siraat ñi sport tere woon jaamu yàlla ay judo ay catch ay kung fu lépp loo tere woon jaamu yàlla ay football ak ay basket ay handball ay volleyball ay javelot ay disque ay poids lépp lu la tere woon jaamu yalla waxtu julli jot nga bañ a julli ngir seetaan loola le bu ëllëgee nga taxaw ci gannaaw loola le ndax la musal malik yow mi diini am na jëmm doomi aadama yoo xam ne yàqule nañu baaxleetuñu du dara dañoo toppoon ci seen jamono lo xam tekkiwul am na ñoo xam ne cinéma rek moo doon seen mbir film bu mus génn danañ ko seetaan bàyyi seen leçon duñ ko jàng ngir bu ëllëgee ñu adme acteur boo leen mus a laaj ci acteur àddina yi wala actrice xam nañ ko li yàqal leen seen liggéey yàqal leen seen jamono lañ waroon a dajale jox seen njaboot ñu dajale ko muy paas ñu dem cinéma am na ñoo xam ne fa lañ jaar yàqule génération boobu yàqu am na ñoo xam ne musiciens yi lañ toppoon ay Ray Charles ay Johnny Hallyday ay ñooñu lañu toppoon fii loolu mi ngi yëngu soxlañ lu jëm ci yàlla fii loolu mi ngi yëngu soxlañ lu jëm seen avonir bu ëllëgee yàlla bàyyi leen ñu sàpp ci gannaaw loola la seet ndax loolu dina leen mën a jéggaloo siraat maliki mooy buur mooy kenn ki nga xam ne moom dong mooy ki fës moo yore baat moo yore mën mun moo yore sañ-sañ kañ yow mu diini kara ba ñuy teqale ba su diin kara ba ñuy teqale diina yi kenn ku nekk la la nga téye woon mooy sa awuwaay ñu seet ndax loolu dina la mën a jëriñ pencab yàlla googale malik yawmi diin ñëpp danañu ñëw yowmal qiyaamati waaye ñëpp duñ tee yowmu diin de am na ñoo xam ne bu ñu génne yowmul qiyaamat yowmal qiyaama dañuy jaar ndey joore dugg aljana ñoom xamuñ ne siraat am na yal nañ yàlla boole ci ñooñu ñooy ashaabul yamin wala ashaabul maymana ñooñ dañuy génn bàmmeel rek jaaree ndeyjoor joor dugg aljana ñoom xamuñ ne coono tax coono am na benn ngoog am na ñoo xam ne dañuy génn biir bàmmeel rek jaaree càmmoñ dugg safara yàlla nañ ci yàlla musal ñooñu tamit du ñu yëg dara ci yow mu diini ni ñu génnee bàmmeel rek mooy asaabul mas masama wala asaabu shimaal ñoom bu ñu génnee bàmmeel rek càmmoñ la ñuy jaaree dugg safara yàlla nañ ci yàlla musal ana ñal ñooy ñëw yow mu diin yow mu diin mooy ñi nga xam ne seen lu baax ak seen lu bon moo tolloo la am ci lu baax loolu la ñam ci lu bon ñoom dañ ñëw yow mu diin yàlla seet seeni jëf bu di mu yërëm leen bu leen di mbugal mu mbugal leen kon benn kuréel a ngoog ñaareeli kuréel gi mooy lan mooy sëriñ si ñu képp ku ñu toppoon da nga ñëw yow diin de yàlla ne na yaa ngi ñu ngi nii doomi aadama nga ni lu taxoon wonoo leen yàlla nga won leen sa bopp ñuy bey di la andil di dajale ay azaka di la andil di dajale ay addiye di la andil boo waxee boo ne tisto balaa nga wax alhamdulilah ñu ne la yarhamkallah ñu jël seen salaire di la jox lu teewoon nga xamal leen yàlla xamal leen sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon sëriñ si tam dinañ yow yow mu diin de mooy yonanti al ulama warasatul anbiya yonanti yëpp dana ñëw yow mu diin yow laa ni woon ana loo waxoon nit ñi diw weddi na yàlla te moom ak yow dendoon lu teewoon nga woo ko ci diina yàlla gi ana ñan ñooy ñëwaat yow mu diin mooy ñi nga xam ne dañoo judd te judd judduñ ci biir sëy dégg ngeen wolof bi mooy doomi aadama yi nga xam dañoo judd fekk seeni papa tak seen yaay ñoom danyo dikk yow mu diin ànd ak seen ndeeg seen bàyyi yooyale yàlla man dey dama feeñ seen diggante du maay ki soloon sama dal di wuti jigéen waaye du man maay jigéen bi ñu soloon di ko wuti man de yàlla sag nattu rek ci laa feeñ yàlla attel sama digganteeg ñaari way jur yi nga xam ne ci yal na yàlla musal yaa rabbi iyaaka yow yàlla képp naabudu la ñuy jaamu waaw yow yàlla dong yaa jagoo jaamu yow yàlla dong yaa yelloo jaamu yow yàlla dong sag jaamu njëriñ ci la nekk sag ñàkk jaamu ci la lor nekk iyaaka yow kott kott naabudu la ñuy jaamu kon lu doomi aadama jaamu bu dul yàlla perte na yàqule na alkole na mu joom dana ñaaw rek doomi aadama taxaw sa gannaaw bunt ne koŋ-koŋ nga ne kooku kan la te yaay sëriñ bi ki ci sa ginnaaw bunt bi yoo xamagoo kan la kon li ngay woote anamu sa taaliba diw dee faatu na kañ la faatu a ah, kañ la def loola la yow war ngaa réele loola la ngay woote maqaama yooyu la kon ki ñu war a jaamu kenn dong la allahu yàlla abudiya dafa am ubudiya am ubudiya nga jaamu yàlla ca nam ko bëggee mu jàmmal la nga bañ a jaamu yàlla ca nam bëggee mu teg la abudiya pal force li mu namm ci yow danga ko def te doo am yool da nga toog nga saf duus nga dugg da nga toog nga sax wanok dugg te bu doon lu la neex la doo ko dugg kon bañ nga koo jaamu ci ubudiya da nga ko jaamu ci abudiya mu teg la feebar ñëpp fanaana nelaw ba bët set yow kenn ngay bër nga doo mën a nelaw iyaaka na abudu boobale mooy allahu muhammadu iyaaka na abudu téeméer la ak juróom fukk ak juróom ñett allahu muhammadu téeméer la ak juróom fukk ak juróom ñett allahu juróom benn fukk ak juróom benn la muhammadu juróom ñeent fukk ak ñaar la juróom benn fukk ak juróom benn boo ko boolee ak juróom ñeent fukk ak ñaar mu daal la jox téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett mooy tolloog allahu muhammadu mooy iyaaka naabudu kon boo jaamoo yàlla te jaaroo ci muhammad doo yegg mukk képp ku jëm ci yàlla te jaaroo ci seydina muhammad doo yegg mukk mooy baabullaahi wa xaasinu fadli loolu la bàyyi wax ca téeram ba boo jaaroo ci muhammad doo musa yegg ci yàlla yonent yépp ci muhammad lañu jaar soog a yegg ci borom bi subhaanahu wa taala mu middul anbiyaa yi wa rusuli mooy kii tëbb yonant yi anbiyaa yi waaye mooy kii tëbb rusul yi moom allahu muhammadu daana wàcc ci téere yi jiitu woon aha tawraata injil zabuur ay téere ibrahim waaye ni mu doon dikkee daawul dikkee allahu muhammadu kon ñëpp yem ci xam ko waaye dafa doon doon am laxalama hudu am laxalama hudu juróom-ñetti araf la da fekk alif benn alif moo ca nekk ah? ak ñaari laam ak benn xaa mooy allahu ba da ca fekk ñaari miim ak benn xaa ak benn daal muy muhammadu kon dana doon wàcc ci téere yi daawuñu xam firiga naka bu ñuy tàmbali sooratu yi ñu naan alif laam miim wala alif laam miim saat wala alif laam miim raa wala kaaha yaayin saat wala taaha wala yaasiin wala haamim añ sin mag ñu baax ñi dañ doon noon allah alam bi muraadihi waaye lépp ay junj la junj yoo xam ne ay baatin alquran la moo tax baatin googale di am la xalama hudu bi doon wàcc ci yeneen téere yi ñu ko tuddee juróom-ñetti araf yi mooy allahu muhammadu boo ko xoolee iyaaka ñeent araf la allahu ñeent araf la iyaaka yow yàlla na abudu muhammad mooy abdullahi ñeent araf la kon ñu ngi koy dégg moo tax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fépp fu ko yàlla di liggéeyloo ngir yéege ko du ko ne muhammad abdu la koy wax lamma qaama abdullahi yéen nañ koy fàttaleeku ci suratul jinni lamma qaama abdullahi waxul ne lamma qaama muhammad de wala lamma qaama mustafa dafa ne lamma qaama abdullahi ba mu demee ba yéeg guddi rañaan nga ba yàlla jox ko lu mu sa jox kenn te mu bañ koo tudd dafa na fa awha ila abdihi ma awha newoon ne fa awha ila muhammadihi aw ila mustafa aw ila muntaqa aw ila muxtaar déedéet fa awha ila abdihi ma awha abdullahi ba koy ràññaane subhaanallazi asra bi abdihi fu muhammad sol ay mbubb te mbubb tenit travail la yàlla di ko yéege ay martaba du jaar ci baati muhammadu wala mustafa wala muntaqa wala murtada turam yi du ci jaar benn abdullahi la ciy jaar moo tax moom seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrul asmaa'i maa ubbida aw hummida tur yi gën ci tur yi mooy tur yi ànd ak abdu wala tur yi ànd ak hamd te mooy cant abdullahi abdul salaam abdul muhaymin abdul jabbar abdul hayy abdul rahim wala tur yi ànd ak hamdu muhammad mahmud hamad hamuda hamdin hamdan xayrul asmaa'i maa ubbida aw hummida kon iyaaka yow kott naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka te yow dong yow yàlla nastaynu la ñuy sàkku ndimbal ci moom ci koo sàkku ndimbal bu dul yàlla ndimbal ga du wey tey mu defal la ëllëg mu defal la ëllëgaat nga ñëwaat sàppi nga ko dootul defaat ki nga xam ne boo ko ñaanee mu bëgg defal la boo ko ñaanul mu mer kenn dong la mooy yàlla innahu yaqdibu an tarakta su'alahu fa sa'al bi ma aratta yàlla mooy buur bi nga xam ne loo ko ñaan mu jox la boo ko bañee ñaan moom yàlla mu daal la mere inna allazi ata bi baabillaahi falan yariba yaa axi wallaahi képp ku dikkee bunt yàlla yi du sooy mukk yàlla dina ko defal ay xéewal waaye boo dikkee bunt keneen ku dul yàlla yaakaar keneen ku dul yàlla yaakaar gi bés na jot mu tas yaakaar gu dul tas rek mooy yaakaar bu ñu yàlla moo tax ñuy naan ah di day moom ak a yàgg wéeru ci yàlla waaye bi yoon day daanu na déedéet dafa cof yàlla kenn du wéeru ci yàlla ngay xawee di daanu ku ñu dégg ñu ne dafa wéeru woon ci yàlla daanu wéeruwul ci yàlla dafa cofoon yàlla ku cof yàlla nag boo xalangoo dootoo jogaat wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu boo wéeroo ci yàlla mu jël sa lépp ba mu jeex tàkk kon ihdina yow yàlla yàlla nag ñu gindi ihdina yow yàlla yàlla nag ñu tette ihdinaa yow yàlla yàlla na ñu jëgat jëme assiraata ci yoon almustaqima yoon gu ne coow yoon goo xam ne lunkuwul bankuwul ooñuwul ihdinaa siraata nag ñu gindi nag ñu jubal nag ñu tette nag ñu ommat siraata jëm ci yoon almustaqima yoon gu jub koccu mbokk yi jub de yombul de seeta saar bi li ci yàlla wax yépp mi ngi bàkk boppam mi ngi kañ boppam mi ngi tagg boppam benn ndigal dongo la ci joxe mooy ihdina siraatal mustaqim moo tax ku baax ki di cheikh Mawlana Cheikh Abdul Qadir Jilani xaddasallahu siraw yàlla na yàlla taas ci barkeem moom Cheikh Abdul Qadir Jilani nee na al istiqaamatu afdalu min alfi karama benn njub moo gën junni karama diw mi ngi naaw ci kaw diw mi ngi tëmb ci ndox mi ah diw ku mu joxoñ nga doon golo njub moo dàq moo gën lii lépp jub ci siraatul mustaqim ba yàlla fekk la ci siraatul mustaqim lii mooy li jafeñ am na koo xam ne bu nekke ci biir doomi aadama yi misaalam waliw kaamil la waaye bu beroo firaw naa ko tane njubadi rek ci lay def dem nañ nag ci jamono lii ñu naan tawam moo wàcce tawu njubadi wàccul nit ñee di rek waaye njubab yàlla gi mooy alquran gi njubab yàlla gi mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ihdina yooyu yàlla yàlla nag ñu gindi yàlla nag ñu tette yàlla nag ñu amat asiraata jëm ci yoon almustaqima yoon goo xam ne yoon gu jub kocc la yàlla nañ ko yàlla defal yaa rabbi siraata te mooy yoonu na ña nga xam ne an amta wàcce nga xéewal an amta xéewtal nga an amta baaxe nga an amta teral nga an amta suqali nga wàcce nga ay teraanga wàcce nga ay xéewal alim ci ñoom te mooy sahaaba yi ak taabiina yi ak taabii taabiina yi waliyu yàlla yi sëriñ su baax si ñi leen di roy ñi leen di topp ñoom om seydna aboubacar siddiq seydna omar ibnul xataab radiallahu anhuma seydna ousmaan radiallahu anhu seydna ali ibn abi taalib karamallahu wajhahu mbokk yi seetal waxinu yàlla ñi nga xam ne moom la xiiwatal ci ñoom seetal xéewal yi seydna aboubacar siddiq ci tooke ci la faatoo tooke ndax jaan daf ko màttoon fan la ko jaan gi màttee ci xunt bu ñu di raaru sawra wala raar ak gu sawr ba ñuy gàddaay moo njëkk dugg Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam ne ko Muhammad bàyyil ma dugg bu luy gaañee bu ci nekkee na yem ci man man bu ma dee benn jëmm ju dee laa waaye yow boo faatoo tey àddina gu tukki nga de àddina gu tukki la seetal ku jeex takk ci doomi aadama ni muy mel moo tax kuy xas Seydina Abubakar Siddiq sa bopp ngay xas jëmm jooju la eh, yàlla bindatul jaam buy melaat ni moom ndax moom moo njëkk a takk maqaama siddiqiya yonte yonte yàlla muhammad naan ko abubakar siddiq maqaama siddiqiya doomi aadama takk ko da nga dem ba doon xutbu da nga dem ba doon rawsu da nga dem ba doon jaamiul fard da dem ba nekk fardul jaami te siddiq ya doo ko mën a takk lii yëpp ay maqaama la ci biir wali moo tax man damay jaaxle yenn jamono kayit boo gis ñu bind ci rek nga gis ñu bind ci diw xutbu loolu du foyekaay diw général la général léegi la doon foyekaay waaye première classe deuxième classe caporal caporal chef ba nga yegg général ay général de division ay général de brigade ba nga yegg ay maréchal ku jog rek ne diw maréchal la nañu tuub delu ci Yalla, wax yu ëpp yooyu ñuy wax foog ne lu xeebu la ñett fa ne bammel, mbokk yi diis na de bàmmeel dana néwi ba fett te ku ko néewi loo mooy yow ki tëdd ci biir bu bu bët wànnentee do nelaw sa boñ buy métti doo nelaw sa nopp buy métti doo nelaw naka nag sa cër yëpp daal di néewéndoo benn yoon nga tëdd ci biir làmmeñ nga tëdd ci biir bàmmeel sa làmmeñ mi ngi néewi sa bët a ngi néewi sa nopp a ngi néewi butit yi ñu ngi néewi mbàq yi ñu ngi néewi sa xol a ngi sa res ngi sa xëtër yaa ngi néewi ñetti fani bàmmeel da nga néew ci biir ba sa bi dana sa kaw keroog kenn du la fekk sa métit góogale yow dong ak sa jëmm jala moo tax bu ñu nekkee ci biir mbooloo xataraayu bu ñu nekk ci biir mbooloo di wax yu jéggi dayoo yow ki ngay wax moom xam na ne yeggul foofale yow ki koy wax xam nga ne yeggul foofale yaa ngi def loo xam ne kabura maqtan indallaahi yal na yàlla dimbale yaa rabbi xoolal seydna ab seydna abubakar siddiq moo ne képp ku koy xas sa bopp nga xas rek moo njëkk a dugg pax bu mu gis mu xotti malaanam saan bi amatul lu mu saañ mu jël xeer yi ci biir saañ mu jógi mu gis benn pax amul lu mu ko sakkee mu dugal ci tëstanam du xam ngeen tëstan tëstan wala seen tontolier mooy maa ngi jéggalu dafa am ñu fi nekk bambara ñu gën a kii wala seen tontolier mooy tëstan mu dugal tëstanam ci pax googale jaan bi nekk ci biir fatt mënta génn ci la màttee Seydina Abubakar Siddiq tooke boobu nag moo ko gunge tooke boobu moo ko gunge incha allah bu ñu yeggee ci aaya ga incha danañ ko firi ngeen xam nan la mujjee ak tookeem boobale te kookale mooy an amta alayhim seydna omar radiallahu anhu jàkka amuloon mihrab jàkka minbar la amoon rek waaye amuloon mihrab eliman dafay jiitu rek sàpp yi topp ko fi omar ne allahu akbar ci njël rek di jiite abu lu ulu a ci la ko ci la jame paaka ci jam-jamu paaka boobu ci la faatoo an amta alayhim seydna usman bun affan di ki denc ñaari doomu jigéen sayyidina muhammad sallallahu Alaihi wasallam ci biir këram lañ ko fekk mi ngi tiim alquran bi di jàng ci lañ ko boomee deret ba daal di toq ci kaw ba ku ñu naan abdullahi bun saba yemu ca mu tëb taxaw ci kaw ay faaram ba damm ñett faaram te ñi ñooy an amta alayhim sayyidina ali ibnu abi talib ba mu génnee njël di julli ji abdurahman bun maljam ci la dajak moom daal di ko bocc samaram googale jam-jam googale ci la demee an amta alayhim alxasan dañ ko tooke mu lekk ca ndabu biiri génn ci la demee àllaaxira te mooy sët bu njëkk ci seydina muhammad an amta alayhim alxas alxuseyn ca karbala ca lañu care ca lañ ko reyee ca lañ ko boomee ku ñu dee chamar ibnu zi ci la daggee bopp bi ñu di ko sànnante di ko def comme bal bopp bi ñu ngi ko yaram bi ñu ngi ko suul ca karbala ci iraq waaye bopp bi mu ngi dox rek boo demee ci baabul faradis ci jaami ustarir ci dëkk bu ñu dee Damas di capitale réewu Syrie am na fu fa nekk nee nañ bopp bi fa la nekk ñu ngi koy ziyaare boo ñëwee ci Asqalaan fii ci réewu Palestine am na fu ñuy ziyaare nee nañ bopp bi fa la nekk boo ñëwee fii ci Qahira di Caire capitale bu Égypte ba tey am na fu fa nekk ñu koy ziyaare nee nañ bopp bi fal la nekk te kii mooy ñaareelu setu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ñooy an amta alayhim kon yàlla mbiram musta sedd musta yomb ñafe rek nga bokk ci gaay yàlla yi muñ bañ a jàbbatu bañ a ŋuurumtu lu la yàlla teg xam ne tegoon na ko ñu la gën waa ah, lu la laal xamal ne laal na ñu la gën ñu la jiitu woon siraatal lazina yoonu gaa ñi nga xam ne ana am te wàcce nga xéewal alim ca ñoom yàlla xayril maxduubi bul ñu boole bul ñu dendale bul ñu dajale ña nga xam ne sag mer wàcce na alim ca ñoom te mooy yahud yi seetal yahud ni mu yéesee yahud dem na ci doye dem ba na sàkk ku mu bokkal ndeeg baay lii mi ngi ci ñoom koo bokkal ndeeg baay boo demee bay bokk ak kooku lal xam na mbon fala tilim fala tàmbale tilim fala yem mboolem loo gis tey mooy yàq àddina gi yahuda ko def seen film yi bon yi ñuy teg ci télévision yi góor futteeku naka ni ko ndeyam juree jigéen futteeku naka naka naka ndeyam ni ko juree ñuy sëy ay satellite di ko sànni doomu aadama di ko seetaan lii ñoom ñoo ko njëkk a def banque yi nekk ci àddina bi yëpp di def riba lépp dërëm fayeeku dërëm ak genn wàll lépp lii seen jëf la ñoo ko andi tey ji te riba dafay toroxal jamono gis ngeen crise mondiale bii ñu nekk tey Amérique usine yaa ngi tëj rek Europe tamit noonu riba bi dong la fii ak riba bi wuñ ko dem ci solution bu lislaam du yegg fa ñu jëm mukk wala daal na du caagan waay sànku yi fii nag maa ngi leen di ci dara mooy téere yiñ yore yi nii yépp ñaari alayhim moo ci ñëw xayril maxdubi alayhim an amta alayhim xayril maxdubi alayhim da ngeen gis ci yeneen téere wér na de wala daalina alayhim da ngeen ko gis waaye wér na de bu leen ko weddi mukk yonent bi amoon na téeméeri junni sahaaba ñaar fukki junni sahaaba ñeent junni sahaaba ba yonent bi wàccee liggéey ñi ñëpp dañoo tasaaroo ci àddina gi njàng googu njàng bu wér la de an amta alayhim xayri magdubi alayhim wala daalina alayhim na ko bàyyi xel dégg ngeen kàddu gi da gis ci alquran fata bayyanu da nga gis am ñu bind fata sabbatu boo dindee maska yak araf yi benn la alquran maska bida la ci alquran tomb bidaa la ci alquran alquran amuloon tomb alquran amuloon am maska ñoom arab lañu woon luñ ne jàkk rek daañ ko mën a jàng moo tax fata sabbatu fatabayyanu boo tombee mun nga tomb fatabayyanu boo tombee mun nga tomb fatabayyanu lépp dafay daal di feeñ kon dégg nañ kàddu gi waxoon naa leen fi ci jamono da nga tukki nga gis ku jàpp waaye du raxas tànkam dafay massa tànkam naka boppam nga gis ñun ñi dañuy raxas suñu tànk bu ñu ñële gisee ne dañoo juum ñun bu ñu leen gisee ne dañoo juum ñoom dëgg la lu am la de bëgg ci réew penk yi boo demee lu mel ni ay xuraasaan réew yooyu bari na foofale lu mel ay Iran ay Afghanistan réew yooyu am na foofale waaye dëgg la de da ngeen ko jàng ca ca alquran arjula ak arjuli boo defee arjula da ngay raxas faxsilu wujuhakum kon wa arjula boo masee ci suuf wa arjuli comme famsahu bi ruusikum ci arafu jar ba ko delloo kon dégg nañ kàddu gi yal na yàlla déggloo ñu boppam yaa rabbi kon fatiha ngoog sabu masaani baat bu ci ñëw rek ñëwaat na beneen rahmaani rahim ci bisimillahi ak rahmaani rahim ci gannaaw rabbil alamina hmm? rabbi maliki iyaaka na abudu iyaaka nastahinu siraatal mustaqim siraatal lazina kon gis nañ ko sabu masaani kon ñu jóge foofu la ñëw ci saar bi ñu tuddee soratu baqara baqara li muy tekki mooy nag li tax ñu tuddee saar bi sooratu baqara def adresse am muy loolu tawfiq yi la danañ ko firi ci kanam tuuti tey incha allah waaye saar bi ñu ngi ko tuddee sooratu baqara kon bismillahi rahmaani rahim alif laam miim alif bu sampee kenn du sempi laam bu sempee kenn dootu samp miim mooy ki ndar kepp am na ñuy jànge alam ndax alif laam miim la kon alam taalam anna zalika al kitaab laa rayba fii hudan lil muttaqin am na ñu ñu jànge noona le ah? alam taalam bi anna allaha yara ah alam tara kayfa al rabbuka alam ah ah alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam nasrah alam najal moo tax am na ñuy jàngee alam zalikal kitaab laa rayba fii bu leen weddi lu dëggu alam te alam anna zalikal kitaab laa rayba fii kon ñoom dañoo ne am na lu ñu fa dog ndax alquran dana waxee noona la boo demee ci biir alquran ne na was alil qaryata laajal dëkk ba dëkk dana wax dëkk du wax nitu dëkk bay wax li fa nekkoon mooy wasal ahlal qariyati kon majaas la wasalil qariyata li fa nekkoon mooy wasal ahlal qariyati kon buñ ne alam zalikal kitaab laa rayba fii hudan kon lu ñu mën a dégg la kon dégg nañ kàddu gi waaye ba alif laam miim boo alif ñett eh, téeméer la ak fukk ak benn alif téeméer ak fukk ak benn te mooy tolloog laa ilaha illa laa ilaha illa huwa ak fukk ak benn mooy tolloog xutbu xutbu mooy kilifay waliw waaye moom mooy tollook kaafi yàlla dooy na lu nekk kon alquran ñu ngi dugg si ci biir am na ñu ne téeméeru saar la ak fukki saar ak ñeent saar kon mu tolloog jaamiu dégg nañ ko jaami u mooy dajale na lépp bàyyiwul dara ndax jiim ñett la alif bi ko xacc benn la muy ñeent kon miim ba ñeent fukk la ayin bi juróom ñaar fukk la booleen boole muy téeméer ak fukk ak benn mooy jaamiu kon alquran dajal na lépp moo ñu ne alquran fukk téeméeri saar la fukk ak ñeent am nañu ne déedéet téeméeri saar ak fukk ak ñett ndax dañoo boole sóoratu lan faal ak sooratut ba lan faal jeexu waayam dafa niroog tàmbali waayu sooratu tawba te bisimilah rahmaani rahiim nekkul seen diggante kon bu ñu boolee ñaari saar yooyu ñuy benn saar kon muy téeméeri saar ak fukk ak ñett dootul doonati téeméeri saar ak fukk ak ñeent waa téeméer ak fukk ak ñett lan lay doon mooy baaqi baaqi ci turi yàlla yi alquran mooy des ba faw lépp dana ràpp jeex ba mu des alquran kon alquran mooy baaqi kon jóge na ci jaamiu nekk na ci baaqi am ñu ne déedéet loolu am na waaye alquran téeméer saal ak fukk ak benn dañoo boole qul a'uuzu bil falaqi ak qul naasi def ko muy benn ngir benn mbir moo leen wàccee ci benn jamono lañu wàcc benn minit benn seconde ci lañu wàcc ñu boole it li ilaafi qurayshin alam tara kayfa ndax ci baatu arab foo andi jaar ak majruur foog mu am fu mu aju boo ne bismillaahi mi ngi aju ci kaa'inun aw istaqara boo ne lillaahi mulku samaawaati kon li fa nekkoon mooy kaa inun lillaahi boo lahul hamdu kon li fi nekkoon mooy istaqara lahul hamdu kon boo ne li ilaafi comme laam ba jaar la ah, li ci des majruur la foog mu am fu mu aju fan la aju ka asfin maakuulin yàlla alag na abrahata lan moo tax mu alag leen li ilaafi Quraysh ngir waa Quraysh am jàmm kon mu doon téeméeri saar ak fukk ak benn mu tollo kaafi mooy téeméer ak fukk ak benn kon alquran a ngoog kon ñu wéy ah ñu toppee borom xam-xam yi kese kon am na ñoo xam ne seen dégg dana jafeñ zalikal kitaabu boobu la téere te mooy alquran mooy haazal kitaab di alquran bi laa déet ray ba sikk sàkka ray ba dengi dengi ray ba xel ñaar fii di nekk ci alquran laa bi mooy laa bi ñoo ci laa ilaha illallah laa bi laa ñaar la laa bi jëf ak laa bi dul jëf laa bi dul jëf waxuñ boobale waaye bii jëf la wax laa bii jëf ñaar lañu bii jëf-jëfu laysa ak bii jëf-jëfu inna bii nag mooy jëf-jëfu inna isim ba ko topp dafay taqaloog moom muy benn nakira lay doon muy ñaar barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan